muy kas bul alal wu lew Cheikh Ibra nag amoon ci taxawaay bu ràññeeku ci tool yi xam ne tàmbalee ko ca Mbàkke Kajoor googu dëkk fu sëñ bi mës soxla sax ni fii daf fi bëgg di wéetal boromu lay leeral la lay gor la lay kay det tax ba mu sëñ bi mën fa nekk taxawaayu maam Cheikh da cee ràññeeku woon muy ca Mbàkke Kajoor ba ni ñuy ñëwee Mbàkke Bawol ba ci Daaru Salaam sëñ Modou Mamoun jërëjëf sëñ Jili macha am na dajale dajale nga ma lo xamne am ñaag la bo xamne xamna seigne Moustapha dama ci. wa dana ci japp waaw <laughs> inshallah allah. jeuf seigne Mamour. Mm. wax nga lo am solo. lo xamne cheikh Ibra waxon na seigne mm. sëñ Jili xam nga bi may wër mag ni mm. am na dekk bu ñu wax Ndattu. Mm-hmm. ma nga ca côté lo ak Gol. ak Pay ak bari jamu Siise. Mm-hmm. Ah, defe duñu sori sax. duñ sori sax duñ sori sax dëkku sëñ Sidi Moxtaar ba kër Ngànna kër Ngànna ca gannaaw foofu ak sànnoo seeg yooyu sànnoo seeg yooyu mhm. waaye xam nga ndàttu ak daaru Ndiaye mhm. sëñ ndàttu moo doon bàyyi sëñ Elsey Ndiaye mhm. sëñ Elsey ñu ngi ko denc foofu doomi sëñ ndàttu la tey sëñ Mbàkke Ndiaye xalifa ba gannaaw sëñ Touba Ndiaye moo ma nettali ci làmbañam dama sama bàyyi bi mu demee ba bëgg tàbbi ci yoon te bàyyam baax na loolu waaye sëñ Touba wóogu ko da dem ci nijaayam sëñ murum maram kan ci sin lay kan mhm. na ko dama bëgg tabbi ci yoonu mu ko ci kan nga xalaatu duggee ci yoonu murid mhm. mu ko ñaari ibrahim yamay dégg ci am baxna na murum maram kan nako ñaari ibrahim yoon la mu ko cheikh ibrahim fatih ak cheikh ibrahim fall murum maram kan nako ñaari néegi sarale bo dugg jàll sëñ alsey dem jëbbalu ci borom daru mu est jambar la de mhm. lu masa bay yut borom daru gis nga lii ñuy waxtaane tey mhm. sëñ Alsey Ndiaye daana indi daana daana jox borom daaru mhm. mag ñi nee nañ borom daaru di indil ku tedd ki ba sëñ Touba sàkku gis Alsey ci te booba moom ci borom daaru la jàpp ndax Cheikh nee woon na góor jàpp ci góor mhm. góor jàpp ci góor góor jàpp ci yàlla léegi nag sëñ Alsey moomee daa am lu sëñ Mamor wax léegi ci ndox mi nee na Cheikh Ibra Fall moo ma ne Alsey ma ne Fall mu ne ma alsay mën a faal ba muy ñetti yoon mu mm-hmm. a doom maag sëñ bamb bi ñëwee jamono mm-hmm. dañoo gis mbindeef yi mar lool ca yàlla ma gis sëñ bamb di am ndox mu bari lool te neex waaye daana ca suufab jànj oh. nee ma ñëw ne mbindeef yi jànj bii ngeen di gis day ndoxo ci mu bari lool te nañ leen ko duppi doom mm. nee na mbindeef yi gàntal maam seex ne ma jëli sama jumtuwaay mm. nee na maag jànj ba maag jànj ba maag jànj ba na ko duppét nee ndox mën a bawute génn seerafal ne ma jël sama tànk bi doom ubbi ko bunt ba dan na ma sey ma ne ko Fall mu ne ma mbooleem ku jëriñ Serigne Touba ku jëriñu la jotta bawan baawan ci nga jari way buntu ma Cheikh Fall ma teg sama tànk la wallahi wallahi wax nga ko junj ko kon kon kon Cheikh ibrahim nee nak ku am warna ma sant waye ku ñak warna ma xarab ndax lepp mëna mm-hmm. kon kon te yëfi Cheikh ibrahim wallahi mm-hmm. moo tax waaw leen <laughs> gay jambar yi jàmbaar lañ waaye tay na duggal ngeen bi mom wallahi atana danaa ci dik ci kanam alhamdullilah yag ngeen ko def de waaye tey ngeen bi alhamdullilah alhamdullilah waaye Cheikh ibrahim li sëñ Moustapha dikk léegi ak sëñ Mandak xam nga day koo xam ne wax nga ko léegi mbiram boo ci tàbbee rek ñu xam ne tàbbi nga ci mbiram ndax sëñ Touba compalu ko nag déedéet déedéet moo ko senti mu raw ma ngoog yaram dina am fa waaye nag lay cosaanal yoon wi ca Mbàkke Kajoor mm-hmm. ndax Seex Ibra nag bi muy ñëw ci sëriñ bi it mm-hmm. dañ nag réer mm-hmm. te boo dégloo sëñ Moustapha sekk mii. daañu ci ñëw ca kanam da nga xam ne Seex Ibra ku dañu réer la. wallaahi daañu ci ñëw ca kanam. ndax njarawax xil la jànge mm-hmm. fa la gane jamono. Mm-hmm. fa la fa yaroo. Mm-hmm. maanaam maanaam di tu tu tànkam génnut njare ci ay bokkam. te ca démb nag ay doomi soxna lañ ba tey. ci lu wér. donte ne nag dammel dee calaw mooy maam. <laughs> kon ci ñaari wàll yëpp la bokk. waaye bi nga xamante ni bii nag jóg na ngir wër Cheikh Ahmadou Bamba léegi. Mhm. te fekk ko Mbàkke ñoom liggéey ba tàmbalee. Mhm. liggéey ba tàmbalee bi muy déparé njare mhm. xëyut xëy jubali Mbàkke déedéet da doon làmb. fu mu yàlla ku ne dem na fa. ba jot faa ñaqal boppam. ngir di sàkku foofe ngërëm. waaye di ku ñuy wër mu jàll. Cheikh rek bi mu déparé yoon wii ma lay wax nag sëñ jili fa la Cheikh Ibra jaar teggiwul jaarul feneen mhm. dëkk yi ma lay limal mhm. fa la jaar ba egsi Mbàkke Kajoor bi mu déparé njare mhm. siin lay kën la njëkke ba mu fa fanaanee xëy waxtaan ak sëñ kan sëñ murum maram kan jàll Badar Guèye Badar Guèye ba mu demee Badar waxtaan ak sëñ Mayib fanaan fa xëy dem tay ba Dakar jóge tay ba Dakar ànd ak Cheikh Adama ak Cheikh Makhtar Touré jàll Mbàkke Kajoor fekk sëñ bi yónni woon sëñ Adama Gueye tay ba Ndaxaar ñu daje ñoom ñaar ñu daje fa mhm. waaye bi Cheikh Ibra Fall déparé ci bokkam mhm. dafa am leer gum séen gu ko sànni siin lay kan waaye sànniwu ko ci biir euh, maanaam kër ci ci jëmm juy dund waaye ci armée la ko sànni mhm. moo tax Cheikh Ibra bi mu egsee siin lay kan jubaliwul ci kenn daa dem ci armée la fa fanaan def fa listixaar lamb li muy seet du moom nee na waaye ci guddi ga nag ca ko xamal ne ko ki ngay seet bu doon dëkk la bor na baa ba dara Hmm. moo tax bi seex la xëyee waxtaan sëñ Mourou Maram kan na ko kon tee ngaa fanaan ba suba boo xëyee wër li ngay seet mu fanaan ba mu la dem Badar hmm. fekk sëñ Mayib Guèye di jiite ca jàkk ja Seex Ibra dab na ko ci julli ga bañ noppee ñu bokk waxtaan ci jàkk ji maam Seex gaaral ko li muy wër sëñ Mayib wax ko ñoom ci liñ ne Seex Ibra na ko de baax na lool waaye taxumaa jóg Ibra jógee Badar dem tay ba Dakar bi mu egsee tay ba Dakar la jàkkaarloo Cheikh Adama Cheikh Makhtar Touré ah, ba gis fa Cheikh Adama Guèye sànni mbiram daal di mooy mu won ko bam ba mbër mu rëy bi naan ko foo ñoo ñoo la tegtaloo ak ñoom ñëw Mbàkke mm-hmm. Kajoor ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu mm-hmm. ba tey Cheikh Ibra ñëwul ci ñaar fukki fan yi mm-hmm. lu jiitu ñaar fukki fan la ñëw waaye ba matee ñaar fukk nag ca bi Moussa la wax la bis ba ngir mu ñaar fukki fan la ci bisib la mbir kon la waxuñu ko Mm-hmm. waaye contrat moom bañ ko signé. bésu dibéer boobu la ci ñaar fukki fan weeru koor yi. léegi nag liggéey bii nga xam ne mooy thème bi. Mm-hmm. Cheikh na tàmbali ko nag. Ah, waaw waaw wallaahi. lii ma lay nettali nag. tàmbali di gor. waaw di gor ah, di buub. di buub xanaa xamoo ne. di sok di wal. ma ngoog boole liggéey di ko boole liggéey di ko jox jeex na tàkk xanaa ndigal li seigne amni ni Moodu Mbenda jot. Mm-hmm. njëkk a jot ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa. Mm-hmm. te bako seigne Bass Abdou Khadir di indil ndigal la neeg ba fukk ya ca newon mm-hmm. bu dee fukk est-ce mat lañ fukk sax. bokkoon ben lañ. maa leen juróom benn laay wala maa leen juróom ñaar. ngay gis image moy bu guub. ndigal lolé la alaaji bar njëkk sante seigne Cheikh Jëmb lolé la Cheikh Rafal njëkk a def Mbàkke Kajoor kon nee la woon ca commencement yoon wi luy gën dëkku ci wallaay dëgg la waaw mhm. la Cheikh Ibra njëkk def Mbàkke Kajoor loolu la loolu la ala sëñ Alaaji Bara njëkk sant sëñ Cheikh jëmm mhm. loolu la sëñ Muntaxa njëkk a sant sëñ Amdi Moodu Mbàkke leen ndigal lee oh. muy buub mhm. sëñ Daam Abdourahmane Lo nee na bi Cheikh Ibra ñëw Mbàkke Kajoor fala ko fekk waaye Cheikh Moodu ma la wax ne ko ndax sa bàyyi Cheikh Ibra Fall mas na laa nettali nam tase woon sunu daara ji karo ba mu jëbaloo ca Mbàkke Kajoor mhm. mu ne ko jotuma ko wax na mu ne ko toogal ma laayale ko biir ndeysaan sëñ daam Abdourahmane sëñ daam Abdourahmane Lo ma mhm. ngi ko nettalee Cheikh Moudou Fatma ndaam gi mu dëkk mhm. la tax mu nettali ko it mooy maam Saliou Fall di rakki Cheikh Ibra Fall moo wàcc liggéey ñu jëlee ko daaru xafoor yanu ko di ko indi Touba booba dog teguñu ko ci oto Baye Naar moo ma ne bokk naa ci ña ko doon yanu bu ñuy dugg Touba man maa yanu la ca des moo ma wax sëñ si yaaram mbay la sëñ daam sant sëñ yaaram mbayee ko jullee mag ñee ma wax de fekk mhm. nañ mhm. biñ noppee sëñ daam si waxtaan ak Cheikh Moudou Fatma mhm. mu ne ko jaaral ndaam ma am lu ma la leeral ci sa baay Cheikh Ibra Fall Cheikh Moudou nee na bi may jub sëñ daam ci njowaan la toog ma jub si ko mu gàttandu ma dalal ma daan ma def bu ma Cheikh Ibra ma sànni yónni fi moom na ma Cheikh yegg si nga ma ne ko waaw mu ne ma cey sa baay ba Cheikh Ibra Fall ndaxam moo ko gore Mm. na ma mbaa xam nga ne ni mu jaaxaloon waa àddina ji ni mu jaaxal tey ji waa àllaaxira ko raw ma ne ko nga ne mu ne ma guddi biig la wax nga xëy sama tey mm. na ma toogal ma laayale biir ndax wax na la nam tase woon suñu daara ja mm. koro ba mu jëbaloo ca Mbàkke Kajoor <laughs> mu ne ko téeréet mu ne ko toogal ma wax la na sam sa sa sama sa baay Cheikh Ibra de ba mu jëbaloo daa féetewoo liggéey mm-hmm. sëñ daam ne ku ko gis wan waxtu fajar nga koy gis ndax Cheikh Ibra lu mu yëndoo liggéey ci àll ba mm-hmm. nee na guddi la koy roñ di ko indi su ko roñe bam mat mu jël goj bi ak baag bi rot nday mm. bu noppé mu tëral goj bi ne debale ëtt bi waxtu fajar di fenk fa nga ko gisee boko fa gisaatee suba la ci waxtu wo xana kon sëñ Mamour moy yendo liggéey fanaane root fanaane root gaayé na lo ba naan xalit ba lay ganaar naan xool xoleet mo fa xewal dawul xewal dawul doxi doxi waaw waaw mo tu neena mo fa xewal nuyo di raam mo na tërë wuyo na nam tërë wuyo na nam jang fa dam fekkon na ñuy jang fa dam mo muy fa mbiram fekkoon na daari di rir waaw waaw cheikh ibrahim dindi àllarba dindi àllarba di biir lu baam Bamba wax. jeex na tàkk waaw mu daal di naaw daal di bi mbiram. léegi nag est que waaw waaye nag. moo tax wooy yooyu am na ci yu doy waar yu ruqe yu mat a waxtaane wallaay wallaay day junj day ju dafa junj lu bari. ndax ñaar yii ne moom lu ma marqué la benn. Mm, mm, mm. mooy yaa njëkk a jébbale sa xol. ndax fekkoon nga gaa yee xor xolal waaw waaw. boobu marqué na ma lool. boobu bi ci des mooy mu daal di ngooy ci Moustapha ngir xam na am na listifa. Mm-hmm. loolu it marqué na ma de. ci lu wér. kon ndekete seex ba mos a tugg. déedéet. ok su ko defee nag. Mm-hmm. maam seex nag daal di tàmbalee loola Mm-hmm. Nena suka su koy def bam yag seigne dame daam Abdourahmane Lo nee mm-hmm. li ci gëna a nak mm-hmm. moy dafa am bis bo xam ku baaki da yor ab jakam moy banti mag ñi yor ñew ba tolloog suñu bunti di fa gëna ndax yewu ngeen ñu ne waaw munu juk leen tal jang ndax jang jotna na dana ci ñu Cheikh Ibra laa dégg mu nan ku tedd ki bayil doomu jàmbur li gi leen di wax te wax leen la sa borom wax ñu jëriñ ta nga bayil li gi leen di wax kon booba seen mam ngi yett buntu oh. ana moy buntu lan jaayante jaayante li nga xamne moy ciosanul yoon wi te ku ko def ku ko deful bokkoo ci yoon dëgg la jébbalu jébbalu mooy yoon bi de gis nga sa baay dib docteur sëñ sa baay dib docteur mm-hmm. sëñ Cheikh Mboor ne woon a taxul ngay opéré de déedéet waaw da ngay jàng médecine kay moo tax yëf yi moom sama bàyyi ci la sama maam ci la du ci dara jébbalul rek est waaw mm-hmm. moo tax Cheikh Ibra Fall nag mm-hmm. daal di wax sëriñ bi ne ko bàyyil doomu jàmbur yi lii nga leen di wax te wax leen li la sa borom wax njëriñ te nga bàyyi li nga leen di wax waaye sëñ bi wuyu ko nag ci ëllëg sa sëñ bi Cheikh Ibra tombe ci mu ne ko mbàkki di de waxoon naa la ko biig nee bim ko ko waxee ñetteelu yoon ba señ bi def na wul wëlbit jakarlo mom ne bim ko jubé Cheikh Ibra daa señ bi jël sotal nok set sot seen diggante moy jamono bi nga xamné nak nag dekkeer baa ngi wàcc ku fi jang indi won setel kenen ku am jotam way leneen nga fi le señ bi waxe lolu leneen lolé nak mhm. moy li fi Cheikh ba Fall indi mhm. Cheikh ba tambali nak dugg àll bi dugg àll bi wallahi daal di nag tàmbali ci tol yi mhm. di bay waaw pap Samba di tol yi léegi waaw waaw di bay di taxan di rot ne ci daara ji ne ci daara ji ba dir bu gàtt lañ def mbacke kadior gannaaw bu señ mor an nelewé ñu ñew mbacke bol sa dekkum mam waaw waaw Cheikh Ibra ñew keur borom faak señ bi di dox di gori di indil señ bi wallahi di dem ci tol yi di indi di yenu say ni di yenu say di indi matti jalambaan yi sëñ bi daan eh, talo ndax bobu ab taal yumbul daana am ay weerte du fay ndax taalukaay moo yombul. dëgg la bañ jóge fa sañ ci Daaru Salaam. Mm-hmm. Cheikh Ibra moo gor Daaru mm-hmm. te te doxinu Cheikh Ibra mm-hmm. bokk na ci ci ci ci li waral. waral sëñ bi ni. nañ dem ndax xam naa ni xajuma fii. waaw ak ndax boobu xamu xamu xamuñu doxin wi. déedéet booba ñu nekk Mbàkke. waaw xamuñu woon doxin wi. déedéet ndax um, xam nga li tax mooy. Cheikh Ibra daana ku ñuy wax sëñ Madoum caam ku dëkk Mbàkke daana wax ne. bis ba Cheikh Ibra njëkkee bañ ku jiite sëñ Touba julli. koroog Mbàkke xaw naa xar nee na am na bis bu sëñ Tuubaa bu Cheikh Ibra Fall dugg see ci jàkka ji. se ku tedd keeg borom saam képp des ca jàkka ja. barke borom mm-hmm. nee na ku ñoom ñaar génn nga jàkka ji. dëgg la. Mm-hmm. nga xam ne mujjoon na sëñ bi sax bu daan ñëw da koy yëgle ci kaw garab. Mm-hmm. na ko xaar ma ci garab bi. xataay boobee nag. tax na te booba li muy wane li muy doxe kenn li muy li muy wane kenn xamul lu mu doon. kenn lu mu doon xamaguñu loola tax na sëriñ bu tuxu. sëñ bi ñëw Daaru Salaam. bi mu ñëwee fekk Cheikh Ibrahima gor Daru Salaam te moo gis suufu Daru Salaam itam nag ñu wax ko sëñ bi ne ko gis naa suuf soo xam ne boo fa toogee la nga bëgg liggéeyal sa borom ak njaboot gi danañ fi toog dëgg la wallaahi moo tax fa la sëñ Mourou Moustapha gane jamono fa la Cheikh Mouhamadou Fall gane jamono am na ñu wax ne sax fa la sëñ Mourou Moustapha Fall gane jamono 1893 Daru Salaam Daru Salaam Cheikh Ibrahima nag nekk ci nag wàccaay ko kon ngir dem Ndar maa ngi dikk ca tol ya de wa dama lay wax fim mu njëkkee sëñ bi mhm. ba ex ndar nak mhm. lepp dib liggey mhm. te dekk yi ñuy wax moko gor ba ci gor Touba mo gor mo gor Touba la la ko señ bi yewé mu dem ndar mo gor daru salam mo gor daru Alimul khabir Cheikh ibrahim mo gor Touba seen ñu Cheikh rafa rek nga daa waaw ak dëndu ndey ma ngok waaw ak khalima ku teddi ak khalima ku teddi kep wallahi ñet yëngu fa amoon léegi nag bi mu ñëwee Daaru fukki fan ak juroom ñaar ci wéru gàmm hmm. ci la daal di nag yeeweeku sëñ bas alxuraan moo ma ne hmm. ci la ko ku teddi ku wóolu daal di koy yeewi nag boole ko maam Cheikh ante ne ko dénkal ma ko askamara mooy bés bi sëñ maam sëñ Bassirou Fall alxuraan daan woote ca Tiwaawoon te bi te jamono yi ñu indi ko fii ci Baye Fall Baye Fall Touba te janatu hmm. mooy bisu ngërëmul maam Cheikh Ibrahima Fall bis ba daa laqoon waaye Baye Mor Ndiaye del ak Baye Mor Ndiaye Dànq ñoom ñoo ko feeñal waaye nag ci ci nag pësteefu magi murit yii muy alkati bamba kasse xamone nga ko de alkati bamba kase boobu daan gis wallaay militaire la mag ne nañ ñoo ñoo ko yóbbu tuwaawoon waaw ma mo bu dal solo yiri militaire bu dal ñëw ci Baye mourou ñay tombe de gone dañ ko Baye mourou dawal police yaa ngi lay japp waye mourid bu mag la won alkati bamba ah. sëñ Adama Ñang wakkaana xan wallaay Ada sëñ Adama sa adama ñang mu Sarr sëñ Lamp Diouf ci Tiwaawoon mu ay mourid la ya, bari xam nga len de bu baax ñoo taxawal bisu ngërëmul Cheikh rafal wallahi wallahi waye nak sëñ Touba nak yewi Cheikh Ibra yabal ko ndar mhm. booba nag ndar mooy première capital Sénégal. ah jeex na tàkk Afrique occidentale française. te xoolal ah. njaxasu nit ñëpp nag laa la wax. ñëpp fa nekk. ba pare kilifa yu mag yi itam. Mhm. nekk ndar am fa seeni seen i base. mën naa cee tudd maam El Hadj si mu baax mi. Mhm. ndar la ko Cheikh Ibra fekk. Ah, waaw maam Amath Seck ma jaara mhm. ndar la ko Cheikh Cheikh Ibra fekk. Cheikh euh, kii El Hadj Amadou Ndiaye Mabey. ndar la ko Cheikh la ko fee Cheikh Ibra maam Madior Kumba Cissé. waaw moom itam ndar la ko fee ak ak ak Ndiakha Cissé. ba Ndiakha Cissé waaw même famille bi la waaw moo jur Basirou Cissé. moo jur Basirou Cissé moom itam ndar la ko Cheikh Ibra Fall fekk. Cheikh Ibra nag ñëw dëkk ci seen biir waaye bi muy dikkee ndar nag moom sindoo di la dal. sindoo ni waaw waaw ca maam ak sëñ As Camara dal am fa ab diir maam As na ko génnal ndar ñu séq dex gi. ndax ñu mhm. yow xaj ñu biir ndar Cheikh Ibra dem gendar ah, waaw waaw cay gendar bi mu ñëwee gendar nag loola fa jënd moom. Cheikh mhm. Ibra xamul ay ay ay ay ay demi parcelle yi yii de. déedéet déedéet kii xam na li xew. Mhm. titre foncier yi teg na bëtam. xam na li xew te te borne yaa nga fay. waaw borne yaa nga fa ah, da koo jënd. xanaa mm-hmm. ah, xamoon na Cheikh Ibra nee na sëñ Mamour Cheikh Ibra nee mm-hmm. lépp loo xam ne jom mm-hmm. ak pëseef ak liggéey moo koy maye du ma ko ñaan sax borom koy liggéey Cheikh Ibra ko loo xam ne jom ak pëseef ak liggéey moo koy moo koy maye Cheikh Ibra ko ñaan sax borom wallaahi da cay ne ba yàlla fekk ko ca waaye du taxaw mukk di tàllal Cheikh Ibra nee na ku ñaan ñàkk bu jëndee am loolooy jom waaw moo tax Cheikh Ibra nag daal di jënd gendar école Sékou Touré ba. moo doon ah. kër maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. moo sës moo sës ca bërëb yi rek. armée waaw armée li mm-hmm. Cheikh Ibrahima nag nekk fa. tey amaan na fa yeneen kër ba ci kër gii ci chaumière nga xam ne bërki démb mm-hmm. ay mbokk ñi ngi ko jënd def ko kër Sëñ Tuubaa waaw titre foncier bi ñu ko toppee titre foncier bi turu Cheikh Ibrahima lañ ca nekk même xam ne li mu amoon gendal bare na te diggante kër gi ak gii war na man ñaari wala ñetti kilomètre ñetti kilomètre Cheikh Ibra moom ca booba jamono ca booba <laughs> waaw <laughs> danaa dikk nag ci lan moo waral Cheikh Ibra bari suuf ay suuf ci Sénégal ba pare te mm-hmm. gisoo benn suuf su benn sëtam mm-hmm. taxaw di fa tabaxi immeuble wala ñu fay fay ko pare wala dara danaa ci dikk le waral loolu mm-hmm. ndax xamuñu na suuf si Cheikh Ibra jënd ko woon waaye sëñ Modou Mamoun nañ ñëw ci mbay mi ah, ndax ndax ndax Cheikh Ibra bi mu waa Ndar <laughs> euh, doon nañu def ay ay système ba ni kii daal nañu fexe ba mu sole fii ba looloo indi woon ci laaj dëkk tasinaire tasinaire gànjo danaa ñëw ah. dama waroon topp ci yoon woo xam ne naa bëgg <laughs> waaw <laughs> tàllal di dem waaw waaye comme waxtu daf ñuy dab waaw ma wallaay wallaay wallaay kon nañ daal dugg foofee waaw waaye dafa am point bi ma doon wax na la Cheikh mm-hmm. ba suuf yu bari yooyu ndax suñu nee Cheikh euh, ba mm-hmm. moom moomoon diggante armée fee Gendar ba fële nawaat moomoom diggante pale bi fii nii principal ba avenue Roume yooyu mm-hmm. te gisuñu dañ naan ñu ana suuf si am na mu demee Lambinaas mais xanaa xamoon ne sañ jiile Cheikh ba Sénégal mënu ko fay borom déedéet est-ce que xam nga ne suuf yooyu Cheikh Ibra da ko doon jënd pour rawale gàddal ko réew mi waaw da doon mu jóge ci moomeelu tubaab yi mu jóge ci moomeelu tubaab yi réew mi maa teg sama bët de mhm. waaw fii na da di pénc dëgg la waaye damaa gis de waxantuma de man ñe ah, ma nekk di Cheikh ko doon jël pour gad rawale la ko doon def da ko doon rawale réew mi mhm. soxla ji daaru bay rek 1026 hectares la demal la na 1026 hectares déedéet te moom la fa amoon moom la fa amoon tey jii boo xoolee kees rek ne ba tey boo demee borne yaa ngi fay fekk yu Cheikh Ibra la la ba pare ma wax la leneen mbaa xam nga ne 1026 hectares yi genn wàll ci ko Cheikh Ibra jënd mais waaye Cheikh Ibra xam na lu xew lu mu def am na lu tax mm-hmm. waaw waaye 1026 hectares moom kenn du ko jënd ci xeer rek ngir dëkk am na lu xew te koroog muy sotti mhm. nañ dox ba ca kanam teñ fekke ko dana am lu feeñ lu seex rek gisoon te gars yi seen gis àggu ca ci lu wér mhm. waaw ci lu wér xam na li xew moo tax nag léegi mhm. bi nga xamante ni bii nag Seex Ibra Faal ñëw na ndar léegi nag tubaab bi ne dañ koo génne ndar pour mu xam nga lan lu waral ñu génne ko da day mas di dox ci mbedd ndar yi xam nga nag dara dafa am mënoon a organiser moom bu daan ndox da daan jiital ndaama yi teg te ñu dugg doomu teg te njool yi raas bu baax waaw ndaama yi lay jiital teg ñi diggu doomu teg ca mm-hmm. njool yi nga xam boo jàkkaarloo ñoom ñëpp ngay seen amul toppal ma xool mm-hmm. bi muy dox nag am tubaab bi taxaw ci benn balkal di ko xool ba siggi waa daanu ci suuf mm. ci saa si daal di faatu ñu woo ko ci tribunal ba laaj ko na ko lu tax kii gis la faatu mu ne la da ngeen da ngeen sànq sama sëriñ ba da ngeen da ngeen koy sànq ji mm-hmm. te man moo ne si samay bët moom laay may dox ci mbedd yi mu ne ci kaw di ma séntu ma ne sigir yam ci leeru sëñ bambi nga ko ajji ñu daal na ko kon nag dañuy fexe yow nga génn ndar lii moo toxal Cheikh Ibrahima Ndar de mhm. na ko wutal nañ la gaalu motoor boo xam ne saa boo amee yitte man ngay jéggi ndox mi dox sa yitte waaye waaye daal wutal nañ la ay toolu yaatu mhm. danañ la indil kayit yi pour nga dem tuxu fa mhm. biñ koy indil kayit yi Baye Ibrahima Thiam nee na bopp jaara lañ ci bind waaw bopp jaara nee na bi ko <laughs> Cheikh Ibrahima gisee gis turu bopp jaar daf ne doom ñaata laay fay ñu ne ko doo fay dara mun naa doom ñaata laay fay ah, ñu ne ko doo fay dara dañu la ko mun naa man da fay war na ndax man gëwuma ku dul doomi jaara ah. tubaab bu xong ci tànn ma dëkk bu tuddu jaara kon doomi jaara fay na cheikh ba dem ko bop jaara bam mu bop jaara nak ah, waaw diggante tasine rek ganjol nak ma ñi jébbalu nak waaw waaw mu fay mu am fa lu yaatu difa bay lu bari bay lu bari noor rek nawet xolal sëñ baylo ci 1890 mm-hmm. la ko jox bop mm-hmm. sëñ mët ndjay ñay top ca ah, sëñ mudu gey ñay top ca cheikh atou man diom ñoo top ca cheikh babakar ndaw ñoom top ca ñi ma lay wax ni ci 1890 ba taw cheikh yi sax fa lañ gënee jamono mhm. bay cheikh ndaw fa la gënee jamono sama mam ci 1800 yi la waaw waaw cheikh Diop taawu seex Atumaan Diop fa la gënee jamono tasineer cheikh ibrahim tuddu fofa mam cheikh nak tàmbalee bay ay tàmbalee nga ci waaju moom doomam ci boppam sëñ Modou Falilou Fall jeena tak fa la gënee jamono mu tàmbalee nak wallahi di bay nak mhm. ay lujum ñu koy jaay si biir ndar mhm. léegi waaw cheikh ibrahim di ko jëlee ci ci tool yi ci tool di ko yóbbu daal di jël ma surang surang ab taalibeem la woon mm-hmm. maa ngi koy wax léegi ne leen Cheikh Ibra Gore masurang ak nam meloon mm-hmm. ku ko mën a jël mu wóor ko ne la kii jox ko sëñ Modou Moussa jox ko sëñ Modou Moussa ah, Cheikh Ibra Gore gis nga sëñ Jili mm-hmm. barki borom Touba ma kenn ku ci amoon taalibe boo xam milliardaire la mm-hmm. noo mën a ñaan di nga ko ñaan bañ a génn kër gi waaye doo ko naan dama jëblu ci kenn loolu daa fen Cheikh rek ko mas a def masuran nga xam ne jekku na àddina xam li ko naan ko doomi la soxla wallaay bu doon ci jamono ji da nga koy téye sa bi muy bi muy toppatoo ji li sëñ Modou Moustapha mm-hmm. autorisation construction jumaa mm-hmm. la la la teg ci loxo Touba bi leen mooy sama garanti jeex na tàkk fukki titre foncier waaw masuran alaaji masuran te kat Cheikh ko jël jëbbal njabootam yëpp Mbacke njabootam yu bëri jaxasoo noonu góor yàlla waa ko sëñ Tuubaa wallaahi Cheikh la ko jël jox waaw sëñ Cheikh naa sëñ Ablaat ñu ngi koy ziar soxna may ñu ngi koy ziar maamam la ñu ngi jël ma suran yónni ko Mali mu koy jëndal Dakande Cheikh Ibra di ko jaay tubaab bi booba Dakande dafa seer Dakande mu koy jëndee Mali Cheikh Ibra di ko jaay Cheikh Ibra ubbi cinquante boutique ci Ndar nag waaw cinquante boutique jël nag ku mel ne Mor Ami Diop ñoom yóbbu leen ci port bi. Mhm. jël maam Samba Diop ndar. Mhm. mooy maami Sidi Gise Diop. Sidi Gise Diop jàmbar la Sidi jàmbar ca Allemagne Sidi bu Allemagne. xam nga ko de. Mhm. moom moo tëli kër sëñ Touba ga ca Allemagne. jeex na takk bi mu desee cent nangam mille euros. waaw nga xam ne boo ko doon seet fi mu nii war na ma soixante dix millions CFA. mu ni kër gii sëñ Moutala dugg fi fanaan fi. du delluwaat ci loxo tubaab bi. waaw mottali lépp moo ko mottali lépp sama kanam. <laughs> maamam nag góor yàlla Cheikh Moudou Moutala ñoo ànd fanaan ci kër googu. moom moomu nag. Sidi moomu. waaw Sidi Gisa Diop. Baye Cheikh Diop a ko jur. Baye Cheikh Diop doomi Mame Samba Diop dara te Daaray Pajaas. Daaray Pajaas la nekkoon. ndax booba Pajaas moo xew. gaa yi ñaw ay Pajaas. Mm. Cheikh Ibra Fall indi leen ci Daaray Pajaas ñu ñaw ay Pajaas. ñe ñi ci des ku mel ne moom ñoom Mourtala Wade moo jur Ablaye Wade. waaw Mourtala Wade mooy Baye Ablaye Wade président bi fi nekkoon. Cheikh Ibra jënd machine u Sancerre jox ko muy ñaw waaw waaw mënoon ñaw lool <laughs> yaa ngi ci liggéey de liggéey laa lay wax Cheikh Ibra du yàlwaan day liggéey waaw buy ma sëñ moo toll moom bokk na ci ñi daan barkeelu sax ci bubb yi daan jëm ci sëñ mag jeex na tàkk xaftaan mm-hmm. yi nga xam ne waaw lay sëñ bi bind mu doon nangam mu bind mm-hmm. deel mu doon nangam noonu la ko daa defee mm-hmm. comme ay turki njaarim yi ngeen di wax ay xeet yooyu <laughs> <laughs> di jël murtu ba ci sax permis oto yii nii nga gis nii danaa la ko masa woon mi ngi sama kër permis yoo xam 1926 la leen passé permis Cheikh Ibra xam naa ñoo xam 1926 la leen passé permis ay permis 1926 boobu sëñ Tuubaa gi te ñooña sëñ Modou Mbène daa leen jàngal oto ci commune Kaar ba sëñ Abdou Sakour Faalum Seex ba ca la bokk mhm. sëñ Assane Awa Jaxate moo doon sëfuru Maam Sali doomam ma ca la Seex mhm. Sall ca moo jur Baye Bada Sall mi dawal sëñ Fallou Mouraminta <laughs> kon Seex Ibra loolu lépp day delluwaat ci ne mhm. liggéey léegi nag ma wax la lu gàtt pour ñu xam ne thème bi am na solo lool parce que Seex Ibra da daan liggéey ci lu wér maanaam bay Ibrahima Ndiaye njaarim la nekkoon dafa xëy bis ñu ŋàbb yu mbuusam yooyu yalwaane yalwaane yalwaane ba woomal mm-hmm. ñëw njaarim mm-hmm. volontaire bi Seex Ibra di di di wax ak mag ñi mm-hmm. di jàkk ko sëñ Mur Fall Mbenda ah, fa la bóof toog ci siis bi wëndeelu ma ngoog ah, fauteuil laa toog fa la Baye Ibrahima foofu bóof ci guddi gi uh-huh. bëgg bu fajar jotee bu Seex Ibra ubbee mu bokk ñi njëkk a nuyoo biñ ko fëggee na ko Baye Ibrahima jugal Seex Ibra ubbi na mu wat lam yoroon mbëpp ganaar geek sañu matt waak yooyu bi mu raamee nuyu Seex ra lam yoroon jox ko bagage yi maam Cheikh di ko xool ba mu yàgg na ko Ibrahima lii foo ko jëlee mu ne ko dama ko yalwaani woon mu a ko yaay wër nga naan ana kuy joxe ngir yàlla ñu naan am yàlla jox la nga naan ana kuy joxe ngir yàlla ñu naan la am yàlla la nga di ko dajale ba mu toll nii mu ne ko waaw mu ne ko waa xalaas waaw ma ne boo léegi bu yàlla fay ñooñu naan am yàlla jox la ba noppi yow looy fayeeku doom mën a teg seerafal ne ko mën a liggéey leen liggéey wër kat mën hmm. a liggéey leen liggéey wër kat bàyyi Cheikh Mbaye yaaram moo kon kooku liggéey loolu sëñ Mamoun daan ci jàngi lu bëree bëri waaw loolu ñi koy ñi ñuy déglu ak ñu seetaan mhm. war nañ ci jàngiwaat lu bëree bëri xam ne loolu mooy yoon wi mooy yoon wi eh, sëñ Moustapha yaa ngi bëgg nelaw